Obrigado. ただいたのか ñoo ngi leen di sant. ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla jàppale leen. day mel ni ba doon doom du yëpp ay ñor yi ñor du yëpp lay jëriñoo am na yoo xam ni dañoo xamu mel ni war a mel na ca kaw waaye picc leen di lekk rek léegi loolu ngi dul jëriñoo kon loolu ko joxe waaye am nga loolu bu doxee da ngay fekk kenn te kenn du la Thank you. त्यो सहयोग teel a roy mag ñi aw ñu war a aw seen teel a ko ko jëriñoo moo tax du ko jëriñoo kenn du ko jëriñoo koy la rek ñaar ko moom lu ko lu bëri jëndee maa amiloo boo ne waxoon nañ addiinu balaa xari ban a jënd ku ne xam na ko Obrigado. আল্লাহর বান্দা করেই যাবে jeex bi la moo xam chef de quartier bi la moo xam village bi la moo xam waa Mbaye si Dado moo xam pour kër yàlla yi nga xam ne ñu toppee ci seewu ca Dado baat dañ koy wax xam naa ne am si liñ cee naka meew amul jotam tànn ko sax boo xam ne boo leen tënalee lay lay laa lañ lay teel lay lay la la mooy bi yow yàlla lay lay la laa mooy bi yow. jaar bëgguñu maamam dara bëgguñu baayam dara lépp su ko wéyul kenn way la lay lay lay jàllale ci jàllale ci lawar wala ñu baax muy baax ci nit boo xam ni fa tabaraka allah yàlla sunu nguur kon ñoo ngi leen di sant bañ di yow li ngeen garab kii su tóor tóor jotee ba bu tóor tóor yëpp ay meññ de yëpp yi meññ ba doon doom du yëpp ay ñor yi ñor du yëpp lañu jëriñoo am na yoo xam ne dañoo xamul mel ni war a mel na ca kaw waaye muito bizarra. আল্লাহ nit ñi ko kàndal daa jël yëf yi dóor ko ci mbàmpaay ba nga yóbbu mën ko ci mën ko ci mën ko ci koy bañ bu leen fàtte abonné ci sen sen youtube samsu TV jant bi leeral aduna te activé cloche de notification boobee ngeen di nabiyul huda fi naw mi wanti baahihi alwa alba allahu akbar mam ahmadu ndak moy sunu serigne yalla nako jox moy sunu njariñ nagn ko japp nagn ko gem nagn ko beug nañ ci fiir